asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu soppi waa daara ji dellusiwaat nañu ak yéen ci suñu vingt-huitième leçon ci suñu téere al axdari yu tabaarakallahu ngeen di ci ànd ak seen mbokku daara oustaz Mor Diouf ngi woon ci nga xam ni sit nañu ko ci julli tabaarakallahu mu lay wax ni wal basmalatu ak wax bismillahi rahmaani moom tamit ci ñu sib la bokk wa taawudu ak muslu gi muy audu billahi min asheytaani rajim nga def ko fil faridati ci jullik farata gi nee na nañu ko waaye juusaani waaye ñu dagan ñoom ñaar audu billahi min asheytaani rajim ak bismillahi rahmaani rahim danañu dagan fi nafli ci jullik naafila nga wax ko ca fa tabaarakallaahu am na nag ay wute yu bare bari waaye duñu bëgg dugg ci yooyu ndax euh, bañ vidéo yi gudd waaye tamit euh, fur et ñuy dem ci yeneen i téere euh, détails yooyu yëpp dina gën a leer incha allah waaye moom lii la la wax moom lax Laxdariyu bi mu ne wal wuquufu ak taxawaay bi ala rijlin waaxidatin ci benn tànk taxawe benn tànk di julli taxawe benn tànk moom tamit sip nañu ko ci julli gi illaa an yatuula ndaree du dafa gudd qiyaamuhu taxawaayam mm, dafa taxaw taxaw bu yàgg tabaarakallaahu eh, benn tànk bi mel na lu nagam wala dara mu yëkkati ko taxawe benn bi waaw ndax taxawaay bu yàgg waaye bu dul loolu sip nañu taxawe benn tànk ci julli gi nee na waxti raanu rijlay yi ak lëkkale ñaari tànkam maanaam lëkkale ñaari tànk yi moom tamit sib nañu ko ci julli gi mel ni ku croiser ñaari tànk yi fekk yaa ngiy julli wa jaalu dirhamin ak def lu mel ni dërëm aw xayrihi wala lu dul moom fi yi ci gémmiñam waa di julli sex dara moo xam dërëm moo xam leneen lu mënti doon nga sex ko fekk yaa ngi julli loole tamit sipp nañu ko wa kadalika niki noonu kullu ma yushawwishuhu lépp loo xamante ne nii daf daf koy jax-jaxee dégg nga de di ko très concentré wu loola nekk fii jay bi ci poosam sib nañu ko aw kummi yi wala catu loxol mbubbam fa tabaarakallaahu yooyu yëpp dañ koy sib ci kiy julli aw ala zahrihi wala mu nekk ci ginnaawam waaw nee na tafakkuru ak xalaat gi fii umuuri duniyaa ci mbiru àdduna yi moom tamit sib nañu ko ci julli gi wa kullu ma yushghiluhu ak lépp lu koy soxlaal dégg nga de anil xushuuci walis toroxlu gi fi salaati ci julli gi lépp loo xamante ni daf lay déconcentré ci julli gi daal teer la toroxlu fa tabaarakallaahu loola sib nañu ko ci kii julli macha allahu rabbi bunt boobu foofu la yem muy jàngale faslun li ak teqalal ak leeral moom tam beneen bunt mu ne lis salaati ñeel na julli gi nuurun leer azimun bu màgg lool leer gu mag julli am na ko tashruqu dafay fenq bihi ci moom qulubul musalliina ci xolu ñuy julli jullikat yi julli dafay am leer gu muy dégagé goo xamante ne nii dafay euh, reflété wu ci xolu way julli yi waaye leer googu nag mu ne wala yanaaluhu du ko am illal na ndare du ñuy toroxlu ñiy julli di toroxlu ñooñu ñooy am leer googule leer googu nag mooy tax tabaarakallaahu sa julli googu dugg ci inna salaata tanha anil fahshaai wal munkari macha allahu taala julli day tere nit ki lépp lu bon ak lu ñu sib macha allahu kon nag toroxlu gi mooy tax nga am leeru julli googu googule mu ne fa iza atayta ila salaati boo dikkee ci julli gi fa farreex na nga viide xalbaka sa xol bi minat dunya tukkee ci li nekk ci maanaam ci àdduna tukkee ci àdduna wa ma fiha ak li ci nekk boo ñëwee daal taxaw pour julli fexeel viide sa xol bi lépp loo xamante ne ni àdduna ak li ci biiram la nga fexe génne ko ci washtaxil te nga soxlawoo bi muraqabati mawlaaka ci janook sa boroom maanaam su maanaam eh, bàyyi xel eh, surveiller janoo gi nga war a janoo ak sa boroom alladi sa boroom bi nga xam ne tusalli yaa ngi julli li wajih yi eh, ngir jëmmam nga daal di ittewoo loolu fexe concentré wu xam ne yaa ngi jàkkaarlook sa boroom subhaanahu wa taala waataqid te fas te dëggal ni ann salaata nit ki julli gi xushuun toroxlu la wa tawaaduun ak sippeeku lillaahi ñeel yàlla subhaanahu tudd na ak sellam dégg nga bil qiyaami ci ay ci taxawaay julli day am taxawaay war rukuuci ak rukuu sëgg jàpp ci oom yi wa sujuudi ak sujuud teg sa ci suuf wa ijlaalun ak dégg nga dem màggal te dal wa taadimun ak màggal lahu ñeel ko moom sunu boroom bit takbiiri ci kàbbar wa tasbihi ak saabal wa dikri ak tudd gi muy zikkar dégg nga de kon nag fa xaafiz na nga sàmmanteeg ala ci sa julli waaw fexeel la sàmmanteeg julli gi waxtu julli gi fa innaha ndaxte moom julli gi aadamul ibaadaati moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi fa tabarakallahu mën nañu yeew foofu ba del suwaat inchaa allahu rabbi euh, ngeen continuer rek inchaa allah di ngeen di abonné ci seen chaîne youtube oustaz Mor Diouf TV macha allahu taala ngir vidéo bu dugg rek kuur yeeg yëpp di ngeen ci mën na jot incha allah seen bokk daara la woon oustaz Mor Diouf beneen jataay incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu